Euh, donc yéen a ngi ñuy actuellement en direct fii ci centre socio-culturel bu euh, Guédiawaye avec les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal promotion 5 qui veulent euh, dénoncer ce matin une injustice par rapport à leur sort sëñ bi ñu ngi leen nuyu nga présenté wu ñi lay teewlu ci Sénégal. waaw maa ngi leen di ziare ñëpp aussi tamit maa ngi tudd Alioune Badara Faye de la promotion 5 rattaché à l'ENO de Guédiawaye ba dara tey ci suba si ngeen woote euh, grève de la faim ngeen ne da ngeen bëgg a dénoncer benn injustice euh, lan moo waral li mel. waaw euh, di injustice weesuwul ñu ñu jàng depuis 2017 ñu ngi nekk UVS ba 2021 bii nii ko quoi fin 2021 bi et que système LMD dafa ne loi bi ñun signé wuñ ko ñoom ñoo ko ne ñoom dañoo ne carrément licence un an lañ ko war a def. ñun imagine depuis 2017 c'est 2018 un an 2018 2019 un an 2020 ñu war a pare mais non non nous on est resté quatre ans et des mois ici au sein de l'IVS déjà ona a subi un retard des retards sax laay wax ndax chaque année ñu ngi toog du muñ mais ba tey bàyyi wuñu o début on était que au euh, aux alentours de 3000 euh, étudiants aux alentours de 3000 voilà léegi nag ñu ñëw ba si suñu euh, suñu fin de licence c'est-à-dire que suñu licence numéro trois ñu ñëw ba pare ba pare ba dara desul dudul ñun ñu war a dem master ñu war a xam ñi ñëw dem master léegi ministre bi mu imposé ñu ay quota ay quota c'est-à-dire que dañuy sélectionné mais tamit ay sélection yoo xamante ne ni dafa waroon a wu dans les règles et alors que tel n'était pas le cas. règles yi lan la woon par rapport a quota bi. Euh, règles yi c'est-à-dire que dafa ne bépp étudiant bu wala euh, mu valider ces trois licences wala mu valider ces trois licences kooku wala euh, mu am une moyenne au delà de onze dafa war a jàll master ndax loolu c'est une signature quoi en fait ñoom ñoo ko signé mais pas nous léegi ñoom nag ñu ñëw ñu ne dañuy imposer ay quotas te quota euh, ñun bu ko comprendre moom mooy genre quoi benn tontine la en fait ndax dañu ñëw ñu puluf ko après ñu ñëw génn ñi génn ñu léegi quoi sur sur quelle base loolu si lan la basé wu. man mii di wax yow j'ai une euh, une moyenne de treize vingt quatre am na ñoo xamante ne ni fii euh, am euh, am nañ ay moyenne de quinze ñoom ñi nga am ay moyenne de quinze et ñun loolu noonu si boppam la ñuy xeex ndax ñun mun ñoo toog fii nii pendant des années ñu toog lépp lu ñu laaj respecté nañ ko lépp lu ñu laaj am nañ ko ñun ñaanuñu leen lu ñu moom moom la ñu war a jox te ñun xeexuñu leneen lu dul parce que dañoo bëgg a jàng nous sommes nous sommes le Sénégal fet ñu ñooy Sénégal donc ñun tey ñoom bu ñu xëyee tey ñoom ñu toog euh, seen bureau dañu ñu sacrifier. décision boobu. mois d'août mois d'août mois d'août mois d'août moment boobu noonu ñun. naka ngeen ko yëgee. benn communiquer la ñu génneel. lan lañ wax. Euh, ñoom dañu see ne carrément boo amee moyenne onze ñoom seen bopp ñoom ñoo changé euh, lii nii quoi nu mu les cotes les lois. maanaam normalement ku am sa licence ku am sa moyenne da nga war a dem master. waaw mais ñoom ñu imposer ñu ne leen il faut léegi une moyenne de onze. Euh, non non euh, te moyenne de onze ñun am nañ ko. am nañ ko mais ñoom euh, léegi nag ñoom dañoo ne boo amee moyenne de onze tu es éligible mën nga am bokk ci sélection yi dégg di nga bokk ci sélection yi mais loolu nu mu tëddee si ça veut pas dire que dañ lay jël par force ñoom loolu la ñu waxaat ñoom après et système LMD moom dafa ne carrément boo amee moyenne onze la nga am 180 loolu dañ lay jël loolu noonu c'est chose boo xamante ne. LMD moom 180 la wax. donc quel que soit noo ko amee mais nanga nga matal 180 crédits. waaw kay na nga matal 180 crédits yi. et ñun mos ñoo redoubler ñun mos ñoo def dara ñun euh, mun naa ne quoi bi UVS liwee ñun ñun euh, on faisait partie des meilleurs quoi en fait ndax UVS on a tout donné quoi pour UVS. mais tey UVS moom bu toogee léegi nag bi ñu demee euh, ñu commencé suñu combat dans la euh, Pacifique bon parce que woote nañ ay conférence de presse au niveau des sièges. au niveau de partout quoi. seen autorités yi ñoom foofu ndax recevoir nañ la ngir ngeen togg waxtaan par rapport ak situation. recevoir nañ ñu recevoir nañ ñu euh, jotaay bi demeewul nen lu dul que euh, on va essayer de trouver euh, la ngeen def ay formation ay ay entrepreneuriat ñoom lool la ñu loolu la ñu proposé. Ah, yéen da ngeen yéen da ngeen amoon spécialité. ñun mun naa ne quoi kenn ku si nekk nii comme par exemple man mi wax ak yow multimédia internet communication laay wax ak yow te ba tey spécialisé wu bu ñu demee ba master dañu war a mën a spécialisé wu. peut-être euh, pour être plus clair en ce moment nii néew ma la en Europe sax même ici au Sénégal boo amee licence yow lan nga fi war a mën a def dara. franchement parler ñun ñun euh, comprendre luñ quoi ndax yow kuy réclamer que moom dafa bëgg a jàng yow nga koy xañ jàng boobu noonu. ñu ñëw ci seen ndaje bi ak ñoom étape par étape bi ñu leen recevoir lan ngeen waxtaan. ñun dañ leen a wax ni car carrément ñun dañ leen wax ni que carrément ñun réclamé wuñ dara lu dul la suppression des quotas ñu ne ñu fépp foo leen gis am na quota ñu ne leen yéen lan moo tax yéen teeloo leen ñoo wax ni que day am quota bu ko defee ñun ñu mën a préparer à l'avance mu ne bon ce n'est pas de notre ressort ñoom loolu la ñu wax ce n'est pas de notre ressort monsieur le cordinateur et les autres membres Bon, parce qu'on n'avait que euh, trois représentants et la FENEV, c'est-à-dire la Fédération nationale des étudiants, ak ñoom ñoom bu ñu demee euh, suñu trois éléments yooyu bu ñu demee noonu ñoom fekk nañ fa benn benn masse de personnes boo xamante ne une douzaine de personnes yoo xamante ne si administration lañ bokk comme si que ñoom dañuy dem guerre lu booy wax ñu xëpp si gaani nee na si dal. de mille ndax euh, euh, on était léegi ñoom ñu jël mille cent et léegi. les autres mille ñu bàyyi leen noonu parce que ñoom nee nañ aussi ils ont des problèmes d'encadreur ñoom IVS léegi nag bu ñu demee tey ba IVS euh, fi mu toll nii quoi. mu yooyu kese lañ leen ñoom loolu kese lañ ñu wax. loolu ils ont des mais mu toll. deuxième au niveau national mu ne day am euh, problème encadré 2200 étudiants la promotion 8 bi nga xamante ne ñoom ñoo mujj ils sont au nombre de 24000 étudiants waxuma la laa wax. léegi ñoom nan la ñuy def boo yooyu noonu euh, bu ñu ñëwee jusqu'en 2024 ou 2025 war a euh, war a def seen master nan la ñuy def ak boo yooyu noonu ñun la promotion 5 on était que euh, au nombre de 3000 ba ñu ñëw ñu dem ba master 2200 la ñu. ok léegi actuellement nii léegi yéen lan ngeen fas yéene maanaam wéyale seen combat bi par rapport ak injustice bi ngeen jàpp ni moom ngeen subir. bon woote nañ leen si jàmm woote ci jàmm woote ci jàmm. te xam nga ne euh, euh, ñun bu ñu bëggoon a tey yàq rek dinañ yàq ndax daanaka tous les jeunes sont vitrés mais amul bi ah, amuñu benn intérêt pour loolu suñ ko yàqee non seulement suñu raqee ñoom dinañ tardé en plus ñun tamit nous serons des responsables te ñun euh, vraiment mun ñoo subir injustice ba pare di defaat injustice mënul nekk voilà donc nag woote nañ si jàmm léegi man moom man mii di wax yow Alioune Badara Faye man moom damay tayal sama bakkan ñun ñaanuñu leen. dañuy revendiquer li nga xamante ne ñoo ko moom li nga xamante ne moom lañ mérité léegi nag bu ko defee nag après li yàlla xam doy na waaw ma dem suul sax mais xam naa ne carrément su ma deewee ko àjjana la yeewoo ko ndax euh, euh, benn cause bu noble la moom laay xeex nii. kañ la tey la tàmbali wala yéen a ngi fi depuis quand. Euh, dem si ngoon dem si ngoon te am na ñu ñu rejoindre léegi tamit nag ba tey tamit la gars yi commencé woon ñëw am na tamit ñeneen ñu nekk si yoon bi et ce sera illimité. ñaata fan ngeen jàpp illimité wala. illimité incha allah rabi. entre ndax vous n'avez pas reçu d'appel wala médiation jóge ci seen yenn kilifa wala ñoo xamante ni tey ñoom ngeen di sàkku ñu jug ci seen i situation. bon à part suñu papa bi nga xamante ne ni moom moo jiite sécurité UVS bi ah jotaguñ kenn waaw. voilà quoi suñu papa boobu noonu euh, te à part moom moom euh, bon gisaguñ kenn ñun moom euh, on ne compte pas laisser comme ça. maa la ko doon laaj sànq nga ne ma autour de 1000 des des des étudiants yi nga xamante ne tey jii nii yéen a dem en grève. Euh, euh, ñoo dem engrais grève. waaw ah, daanaka bon c'est une coordination. c'est une coordination ñi nga xamante ne nii euh, tous les étudiants non sélectionnés ñoom ñoo fi nekk. tey tamit am na tamit ñoo xamante ne nii ils ont été sélectionnés aussi ñoom ñu ngi ci biir loolu moo tax mënu ma wax. ah non mais c'est au-delà de lii nii c'est au-delà de mille ah bon parce que c'est au niveau national aussi. waaw léegi am na ñoo xamante ne nii ñoom ñu ngi jógee si rejoindre yi quoi euh, euh, dañu rejoindre nii waaw ndax dafa am ñoo xamante ne ñoom sélectionné nañ leen te ci euh, te c'est une injustice léegi ñoom tamit dañuy ñëw ñu ñu rejoindre ci combat. dafa am ñu ñu sélectionné mais ñoom ñu jàpp ni vous avez subi une injustice ñu bëgg leen rejoindre ci seen combat. voilà voilà noonu la ko demee loolu moo tax. waaw. léegi euh, ma bàyyi la euh, nga wax doléance yi nga xamante ni en résumé par rapport ak seen euh, situation ci ñi leen di teewlu. waaw bon ñun ñu ngi woo le président lui-même le président notre cher président Macky Sall et aussi le ministre Cheikh Omar Anne de revenir sur cette décision bon parce que si l'UVS n'est pas capable de nous encadrer qu'il n'a qu'à fermer ses portes loolu parce que ñun xibaar yi ñu amoon mooy vous êtes très bien traité yéen yéen ngi ci situation goo xam ne lu mucc ayib la venant des autorités yi leen di encadrer euh, léegi ndax mën nga ñu wax yéen conditions yi ngeen doon jàng ak li ngeen doon dund. <laughs> c'est-à-dire que euh, euh, mën naa ne ñun bokk nañ si ñu fi mujjee ñëw ndax 2017 lañ fi ñëw mais suñuy aîné suñuy aîné ñoom li ñu doon dund sax ñoom mënuñu ko woon a wax am na suñuy aîné yoo xamante ne ñoom ñoo jënd seen bopp ay machine mais ñun ñu ñëwee même suñu machine sax balaa ñu ko jot dañoo xeex ba pare. non si am nañ bourse mais euh, même ay euh, ay problème bourse ndax tey koo xamante ne tey il est dans le numérique moom bon euh, mun nañ ko lancer facilement ndax loolu nekk na loo xamante ne ce sont des métiers d'avenir en fait te UVS benn évolution boobu la def. est-ce que vous étiez tous outillés en termes de machine connexion. oui mais pas carrément ndax ndax des fois bala ñu jot suñu connexion rek mooy loolu te bu ñu ko jotee deux jours ay trois jours mu jeex loolu mënoo sooy def ay des cours en nous on était obligé de chaque jour bu ñu xëyee ñëw fi defaat naa amu leen woon campus fi goo xam ne yéen ñëpp war ngeen fa mën a dem di connecté. Euh, euh, fii nii c'est-à-dire que moom mooy euh, nu mu tuddati le foyer fii la booy di ñëw te fii nii kenn ku si nekk nii dafa am jour boo fiy ñëw kenn ku ne dafa am jour boo fiy ñëw feneen boo fa demee boo fa amul accès ñoom ñoom seen bopp ñoo la koy wax fii amoo fi accès fii amoo fi accès en ce moment nii waa promotion bi ñoo fa am accès ak ñi def examen. ñun ñeneen ñi man moom tamit man su ma fa doon dem dama dem euh, juste rek waa pour photo genre euh, ay meubles lañ ko def quoi au fait ay meubles lañ ko def bon gars yi nag mun nañ nekk ne di wax nii voilà IVS lii IVS lii IVS lii mais boo fi nekkul doo xam te ñun pour pourtant loolu yëpp dañ koy muñ ndax ñun tey suñu rakk tey bu ñu ñëwee ñun ñoom tey suñu la ñuy euh, suñu la ñuy topp ñu wax leen ni carrément kat IVS kat c'est l'avenir mais. dafa am ay kii yu su nekk te donc loolu noonu foog ngeen toog la ngeen muñ la ngeen gérer situation bi bon parce que ñun jaar nañ si pendant quatre ans huit mois ñun ñu ngi ñu ngi IVS loolu noonu non seulement sax dañu ko waroon fay bu fekkente ne ñu ngi si pays de droit retard boobu noonu dañu ko waroon fay. ok leneen lu ma la laajul te xëy na cri de cœur la bëgg nga tey askan wi jot ci ñu dégg ko ngir ñu wàllu leen ci jafe-jafe ngeen xamante ni da ngeen koy dund. waaw bon tey mën naa ne tey suñu yaay suñu papa yi. ñoom euh, euh, te xamuñu situation bi fi mu toll ndax man tey euh, depuis 2017 boobu ba ñu fi jógee ñi nga xamante ne nii ñun tey ñoom lañ amandaloon bag ñoom instant ñoom ñu ngi seen master 2 man ba tey man maa ngi fii nii war a war a xeex lan juste pour ma dem master 1 mënuñu ma ko may vraiment c'est déplorable et bon ah, dañoo désespéré au fait dañoo désespéré ndax jàppoon nañu que carrément au minimum fii Sénégal. Euh, ñu ñuy kaas juste pour jàng suñu waroon a mën a ñëw tey euh, di laajte loolu noonu non seulement dañoo war a jàpp ba pare dañoo war a teg dans des meilleures conditions mais c'est-à-dire que en ce moment nii nii l'éducation au Sénégal est bafouée par l'État lui-même et ça bon. diggante bi ngeen tàmbalee grève beeg waxtu wi ndax euh, signalé wu ñu fi ay cas moo xam ci ñi fi nekk ndax dara xewagu fi ci wàllu seen wér-gu-yaram ak yooyu. Euh, bon euh, mën na am ñu commencé sonn man mi man mii di la wax nii rek xam naa ne fii ci kanam rek mooy loolu te euh, ñii nii sama ginnaaw nii rek ñoom. soxna laa gis ñu tëdd. Ah, waaw ñoom dèjà rek ñoom. ñu bëri lañ même na ñoo xamante ne nii en ce moment ñoom ñu ngi si yoon bi ñoom ñu ngi ñëw la plupart ay jigéen lañ te ñii nii vraiment yow boo amul si yow yërmande boo amul si ñoom yërmande vraiment ñun xamuñu yow ci ban genre ci personne nga quoi en fait. ñu conclure rek nga fàttaluwaat ñu doléance yi en un mot rek pour. waaw xa yi mooy que euh, suñu quota lañ bëggul doléance yi mooy que la coordination des étudiants de la promotion cinq leen kese la ñuy réclamer euh, ñu renke euh, réintégré ñu waat ci système bi. boo parce que ay quota vraiment amul place au sein de l'UVS képp koo xamante ne nii am na déggal il y a euh, il a rempli tous nañ ko jël loolu kese ok ma may sa mbokk mi sëñ bi euh, noo tudd. maa ngi tudd Seydina Aliou. Ah, Seydina Aliou mu mel ni dafa am loo bëgg a dolli ci mbir mi lan la waaw si si dañ ma signaler fii am na am na ku nga xam ne dafa subir opération yàggul dara te teewut mi ngi mi ngi mi ngi fii nii mi ngi mi ngi mi ngi fii ci grève de la faim bi voilà. ak ak risques yi ko ci mën a fekk yëpp voilà mais combat bi moo toll foofu noonu. le message c'est ko le message du lenn lu dul ñun sélectionné ñu nañ ñu sélectionné par la force. est ñoom jàpp ñu ne tamit da ngeen a nangoon cota bi dem ba ci biir ngeen bëgg a wëlbatikuwaat di. voilà loolu noonu ñun mosuñu xam sax IVS mosul xam IVS mosul xam sélectionné master promo une ba promo 4 amul sélection da ngay. ngeen yëg ni yéen affaire juste après buñ paree suñu licence bay xaar sélection. di xaar wu ñu waree dem inscrire master ñu tëb a tëb indi ñu communiqué ne dañuy sélectionné par quota indi seen i seen i critères yu bëri léegi ci biir critères yooyu noonu ñu fexe ba dindi critère d'âge bi léegi mu des yeneen critères yi ñun ñu remplir yeneen critères yooyu ñuy laaj muy 180 yi ngay am moyenne 11 ñu sélectionné la léegi nag ñun ñu remplir loolu loolu ñu ne du ñu sélectionné voilà loolu mooy problème bi te ñun ci biir man mii di wax ak yow. am na fu dama am na ku ma yaakaaroon ma ne pour ma dem ma jooytu ko sama combat moom dafa dem ministère ci boppam xam ma den la woo xam ma dafa demal boppam ñoom ñu ne ko kooku il paraît que dafa dem mos a def rattrapage kooku woo ma téléphone ni ma da ngaa mos a dem rattrapage ma ne ko c'est mais loolu lañ la wax man xam naa am naa ñu ma xam ñu bari ñu ñoo bokkal classe dem nañ rattrapage te sélectionné lañ leen kon yaa y' a un problème y' problème voilà. léegi euh, un mot en français rek pour résumer par rapport à votre situation. Vous avez entamé euh, un mouvement d'humeur, vous êtes en grève pour dénoncer une injustice. Vous n'êtes pas sélectionné en masse. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces raisons Bon, euh, euh, bon je me nomme Alim Badarafay, euh, étudiant de la promotion 5 et au niveau de l'année de Guédiawaye. voilà, la situation n'est rien d'autre que on a subi une injustice une injustice venant non seulement de la part du ministre euh, du ministre euh, tutelle Moussa Cheikh Omar Anne et aussi euh, euh, de la coordinateur de l'UVS. Voilà. Euh, à, ma grande surprise, on a reçu une communiqué au mois d'août passé en nous, imposant des quotas. C'est-à-dire qu'on on l'a imposé. parce que ce n'était pas ni des lois, ni un décret, mais c'était juste Euh, des informations euh, venant du, euh, du ministère. Et nous usons cet acte déplorable. Bon, parce que tout étudiant ayant rempli les critères nécessaires, c'est-à-dire avoir les 180 crédits et une moyenne de 11, devrait être en master, mais pas admissible en master. Bon, et eux, ils ont en nous disant que vous êtes admissible, à aller en master. Euh, si vous êtes euh, si vous êtes éligible vous ne pourrez pas euh, vous pourrez ou bien ne pas ne pas être sélectionné et on ne comprend plus la situation. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités par rapport à votre sort? Bon, euh, de nous réintégrer. et ce qu'on demande, je pense pas que euh, ce n'est une, si c'était au niveau de l'État, ce serait le 1%. Bon, parce que nous ne sommes pas nombreux. mais nous demandons rien d'autre euh, d'être réintégrés dans notre système pour continuer nos études. C'est juste ce qu'on demande et rien d'autre. Voilà. merci beaucoup. Voilà, donc euh, c'est bon. ci affaire bi nombre bi nombre rappelez-nous le le nombre. Ok, revenir sur ça, le nombre est... Bon, euh, on était aux alentours de euh, en 2017. Et jusqu'à 2021, on se retrouve avec un nombre de 2000 personnes. Et euh, euh avec l'avènement de ces quotas-là, nous nous retrouvons au, nombre de 1000 et quelques étudiants qui, qui n'ont pas été sélectionnés. Comment comptez-vous mener le combat pour l'instant, on a démarré notre grève de la faim. et eh, jusqu'à ce qu'on ait une gain de cause. Et euh, euh, je peux dire que en dehors de cela, euh, euh, nous nous appelons toujours à la pacifique. Et si ce n'est toujours pas le cas, bon, franchement parler, on va riposter. Riposter, c'est-à-dire que <laughs> Comment riposter <laughs> Comment riposter Nous sommes au niveau national. Nous, ne sommes pas juste une bloc. On va gaspiller tous les énormes. bon parce que euh, en ce moment on a marre on a marre vous savez euh, euh, le, le coordonnateur euh, depuis le début on lui avait demandé une rencontre il nous avait ça bien évidemment mais il nous avait menacé en écrivant un communiqué en nous disant que je vais vous recevoir soit en ligne soit en présentiel mais pendant ce temps s'il y aura des euh, euh, euh, euh des moments euh, de rumeur je ne vais plus vous recevoir et vous comprenez que ce combat ce serait classé en tant que coordinateur en tant que comme personne qui devrait être morale envers ses enfants envers ses étudiants bon on a ça Je m'appelle Souleymane Diallo, je suis de la promo 5. Souleymane, euh, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre sort euh, nous voulons juste réclamer notre masse. C'est notre masse que nous voulons. Parce que ici présent, les gens qui sont présents ici et d'autres gens, ils méritent leur masse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas repris depuis la première année jusqu'à troisième année. ces gens-là, je pense que s'il s'agit de critères, il faudra d'abord regarder ces genres de personnes-là. Il y a encore eux-mêmes, c'est eux qui ont dit que celui qui a les 120 crédits, qui doit être sélectionné. Et parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui ont les crédits. Et ces 120 crédits-là, au-delà de ça, il y a des surplus même. On a plus de moins de 11. Par exemple, moi, j'ai plus de 12 même, j'ai 13,5 et, euh, et quelques. C'est eux-mêmes qui ont mentionné Euh, licence obtenue avec mention bien. Et pourquoi on ne doit pas être sélectionné C'est ça qu'on se demande. Il y en a beaucoup, beaucoup de même, des gens qui réclament ce genre de choses-là. Il y a, a c'est eux-mêmes qui ont mis ce genre d'erreurs. Il y a des étudiants qui, ont, qui sont allés en rattrapage, qui sont sélectionnés et des étudiants qui ne sont pas jamais allés en rattrapage et qui ne sont pas sélectionnés. si un étudiant n'est pas sélectionné, il y a des raisons qui expliquent sa non euh, sélection, n'est-ce pas? c'est ce qu'on pense nous, c'est ce qu'on pense. des explications par rapport à votre non sélection? Voilà, c'est il y a de ces explications-là qu'on ne comprend même pas. si je me demande la question, comment est-ce qu'il est possible qu'on me demande les 120 crédits que je ne suis pas sélectionné, que je ne suis jamais allé en rattrapage, parce que je me suis donné au fond pour ne jamais reprendre rien du tout, de la troisième année à la... et de la première année jusqu'à la troisième année. Et on vient me dire que tu n'es pas sélectionné. On me met en liste d'attente et on me dit ça. Et moi, il y a une seule chose que je voulais signaler. Franchement, nous sommes, actuellement, on est en train de faire les choses mollo, mollo, quoi, en on se sacrifie pour ne pas, voilà, pacifiquement, pour ne pas casser les choses. Mais il y des limites à toutes choses. Et nous ne voulons pas atteindre ça. à atteindre ce de choses-là, demain, je vous dis actuellement, on la faim, demain vous pouvez nous eh, au niveau des rues. Et on man, je, je, ça, y a même pas de, y on ne va même pas patiner. les génaux parce que nous sommes présents au niveau de toutes les 14 régions. On va bloquer tous les génaux et il n'y aura pas de cours. Ça, c'est ça qu'on va lancer. Parce que tu vas faire des choses. Les Sénégalais, c'est que l'administration ne connaît pas la paix. C'est-à-dire qu'il faut que tu te bats. Donc, ils nous ont montré ça. Actuellement, on fait la paix, on fait ça. Mais on va bloquer Dakar. d'abord, on va bloquer. Parce que nous sommes présents à Dakar partout. On va bloquer ça. C'est ce que je voulais dire, franchement. Et nous les remercions et nous voulons notre masse. Oui. waaw bien maa ngi tudd Aminata Ndiaye. Aminata yow lan nga bëgg yokk ci doléance yi nga xamante ni sa naataangoo yi def nañ bon man li ma ci yokk rek c'est c'est comme si que ñoom duñu xalaat boo demee ba naa nit ki boo amul 180 crédits avec une moyenne de 11 doo jàll. encore tey bu ñu sukkandiku nit ki lu muy jàll lan lañ lan lañ war a xool yow def nañu examen dew ma rattrapage yow nga dem rattrapage ñu dem ñu jël la c'est paradoxe. lu tax mu paradoxe examen bu ñu fa demee koo xamante ne dem na rattrapage pour lan la pour yokk moyenne la yow moo xamante ne mënoo mësoo dem mais tu devais être sélectionné d'office mais du waroo xaar mais non loolu la ñu def ñoom. lan ngeen jàpp ni moom moo li ñuul li ci soow li lan moo làkku ci ginnaaw seen sélection parce que bu ma leen comprendre yëf yi dafa mel ni dafa am yaama neex ci biir sélection bi. dafa am yaama neex bu baax sax am na ñoo xamante ne ay doomu UVS ay doomu ñooñu la su ma ko tee dama ko du ma ci xool kenn sax da ndax dama koy wax doomu ñooñu la soo ñoo xamante ne ñu ngi diriger ñu ngi ci kaw a kaw ñoom la ñuy privilégié jël leen boo gisee xare bi ñoom mu suñu ci wax te xamoon nañu tôt ou dañ leen di sélectionné par A ou dañ leen di jël suñu xare bi ñoom mësuñu ci bokk mësuñu ci bokk laaloo mësuma gis kenn ko xam ne mu ngi diriger bokk ci xare bi pour lan moo xam ne par aw ou par B dinañ ko jël ñun ñoo xamante ñu ngi ci ginnaaw midi matin soir ñu ñëw ci eno yi di jàng di perdre suñu temps amuñu lekk amuñu naan ci eno yi la ñu nekk di jàng aha ñoom aha am problème ñii mën nañu bari njër te nga am sa moyen bu baax fan lañ ko teg xam nga teguñu ko fenn mu ngi mel ne yaa ngi def sa baccalauréat nga nga dem deuxième tour kii am déficit ñu ne ku jëm deuxième tour la ñuy jël ñun dañ leen du ñaanu leer mooy ko ñun soxluwuñu dara lu di njàng jàng la ñu bëgg moom la ñuy yore voilà loolu la dañuy loolu jàng la ñu bëgg loolu la ñuy yore ci loolu la ñuy fekk aussi dañuy jàng bu ñuy deful loolu nag ñun lépp loo xamante ñun suñu doole dinañ ko def loolu dafa leer man je recule pa je pèse bien mes mots je recule pas lépp loo xamante ne war na ko man mii Aminata Ndiaye dinaa ko def te depuis le début musuma lasser et je ne vais jamais lasser le combat ndax injustice la du ma ko nangu dama naa bay naa naata damay porter plainte te loolu duma ci duma ci dellu ginnaaw sama dëgg laa nekk ñoom duñ def luñ def ba pare bëgg toog fii di sacrifier nit ñi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg merci. baax na defe naa indil leen benn critère de sélection goo xam ne finalement ils l'ont jugé comme une injustice et di sàkku autorités yi ñu jug ci situation bi ndax l'heure est grave di leen jaajëfal euh, yéen ñi ñu doon teewlu.